ak malawam mbooloo ma siina tan taaru adduna waaw waalangal alal ju dul jeex te raaya di cee dund duñ yàgg di tees man Moussa maa ngi lay ñaan yaa rabanaa yow borom sunu yi lu loolu loolu boo ko defee day firaw na ngir day day réere an sabilika day gën a réer rek an sabilika bàyyi bi sa yoonu diine yaa rabanaa man Moussa maa ngi lay ñaan yow yàlla ibnis ibnis yàlla na nga marmaral alal jëpp yàlla na nga ko defi doj yàlla na nga marmaral ala waalin ci seeni alal nga mas ko ko was dudd dëgëralal ala xulubin ci seeni xol ñu bañ a tuub tay ko falaa yooyu menoo bu ñu gëm mukk ataa yarawa ba ta ñu gisee asaabi mbugal bi fekk tuub passé allah li ma gën di metti haaruna ni amin Moussa moo doon ñaan Haaruna naan amin moo tax ñu ne amin ci ñaan la booy ñaan yaa ki naan amin yéen a bokk di ñaan amin astajib duaana xaala wax suñu boroom Moussa li ngeen doon ñaan yaa Haaruna xadoo jibat nangoos na daawatu kuma seen ñaan ñaan ngi nangu na waaye xadoo jibat daawatu kuma bañ leen ko waxee yàlla dafa ne fastaqima muñ leen nag waaye tooba saxal baama sulli ñaan ci suba jant soogul nga ñëw ni ñaan ngi dee nangoogul ñaan ngi mën naa nangu te fekk kenn libéreegu ko bis bu ne ngay ñaan sa buur dara mu may la ko waaye bis bi mu la ko mayal ak bis bu libéré bi bokkul fastaqima mu ngi leen nag
ñaan gi fi mu dikkee ñeent fukki at arbaina sanatan wala tattabi'ani bu leen topp sabila lazina yow na ñu nga xam ne laa yàlla moo na xamuñu xamuñu wa jaawas naa nu jéggale bi banni israila ngir banni israila albaala jégg faat bawum topp leen firawna firawna wa junoo doog mbooloo ma juróom benn téeméeri junne nit mooy ngir banni israila waa Firawna yi di un million ak juróom-benn téeméeri junni junni junni caw ñi mooy million million un million ak six cent mille ak juróom-benn téeméeri junni. waaw ñoo ànd ak Firawna di dab Moussa Moussa ak ñi ñu àndal di juróom-benn téeméeri junni nit six cent vingt mille. nga xamante ni nag. jot nañ ko nag firaw na nag fekk na nag dafa am lu mu signé woon kayit bu mu signé woon kayit wi kañ la ko signé ba misra ñàkkee ndox ñu ñëw ne ko du yow yaay yàlla mu ne waaw waaw ñu ne ko léegi nag dëkk bi ñàkk na ndox dañoo bëgg nga wutal lu ndox mu daal di dem ni mu ngi baawi daal di takk naaru góor ba sol mbaxanama sol yéreem dem ba ci xeru géej gi mu ne xaar leen ma fii fekk tabax na fa néeg boo xam ne moom rek fay dugg daal dugg ci néeg ba fekk mi ngi yoroon sakkoos boo xam ne dóom la ko def mu sotti ko xalanku ci xalanku ci def yàlla mu neen ba weex tàll tëj bunt bi mu ni yàlla yaa bind juróom-ñaari asamaan bind juróom-ñaari suuf bind bindir yépp bindaale ma ci yàlla lii ñu may ñaan kat yow rek ko am damaa bëgg rek nga jey ma yàlla na ko may naa la ko mu génn ndox mi ne tëf di wal mu ngàbb karwaas bi fu mu ko joxoñ rek ndox mi dem foofu mu ne alaysa li mulku misra wa asi la ndaar tajiri min taatee afalaa tubsiroon foofee nag ñu ne ko gannaaw yàlla defal nañ defal nañ la lii nag benn waaye ñëw fi ne ko damaa amoonuk laaj mu ne ko lu mu doon mu ne ko jaam boo xam ne bii dafa nekk ak buuram kilifaam kilifa gi yar ko di ko jox añ ak reer ak ndékki di ko sàng di ko defal lépp lu mu soxla ba yàgg nag mu daw nangootu la nangootu la wii ci ndigalu buur bi xanaa nekk ci yoonu boppam mu ne ko kooku nañ ko def ci baaru xalsoom nañ ko naq ci baaru xalsoom daal di bind ne yaqulu musab ibnu rayaan yaqulu abul abbas kon musab ibnu rayaan parce que abul abbas lañ ko daan wax ndax abul abbas garaat la maanaam ku am daraja boobu moom lañ koy wax yaqulu abul abbas musab ibnu rayaan man maa bind signé ku def loolu nañ ko def ci baru xalsoon daal di signé jibril na woon ko kayit wa ne ko lii yaa ko bindoon te loolu nga def mu bëgg a tuub nag jibril nag tibb ca ban ba rokkos ko ca gémmiñ ga ba mu bëggee wax laa ilaha illallah mu tibb ban rokkos ko ca gémmiñ ga mu ne laa ilaha illallah si amanat bihi banu israila yàlla day gën a ma yomb yàlla ko doon aha illallah si aha illallah si deel gu tey gi juróom-ñaari téeméer la ca wañ illallah al saqet gi juróom la juróom-ñaari téeméer mënul remplacer juróom ah ah ay la xaala mu ne amantu gëm naa hatta isa dara waxal xaala mu ne amantu annahu déet naka moom luy dëgg te dëgg laay laa déet benn bër idal la si ndare ka nga xam ne amanat gëm na bannoo israila ngir bànni israila bii ci moom te mooy Muusa ba tey waxul yàlla di waa naa taman minal muslimina léegi bokk naa ca jullit ña léegi nag ci laa bokk ñu ne ko passé na alaana xanaa léegi xanaa léegi nga gëm yow koy waxat asayta moyoon nga xablu ci la jëkk wa kunte nekkoon nga mene moom si dina bokk ci ñuy yàq nit ah biir bànni israila nag ni firaw na labul gëmuñu ko moo tax mu ni fal yow ma tey nu na jëkka dana nu la génnee ca géej gi bi bata nekkal sa yaram mu neen nga ni mutt mu tuural laa roo fii na dëng dëngiral ak rafetaay ba ndokk si lu rëy lu baax la dara ak doq bu rëy ga
yaa ngi jël sa wàll.
waaw
yaa ngi jël sa wàll.
li tàkkoon na ngir na nga nekk li man xalfaka aayatan di kiimaan li man xalfaka firaw na foofu rek la mujj ah
waaw.
waaw waaw.
ah ku dem keer kay siis ba
ba tey ñu ngi lay ñaanal rek.
jaaxaan rek ma dëng dëng rel rek di ci moom la suuf ci moom la ndox tàmbalee bi xëdamaat ay na kasiira li ci lu bari mi ne naa si ci nit ñi la xaabila na way sàggan la ñu anaayatina wala xat bawaa naa wàccee noonu bani israila mu bawaa siddiqin wàccaayu dëgg nu wàccee leen saam misra wala saq naa nu wërsëgal leen mi ne tayibaate yu neex fa ma axtalafoo wuute wu ñu nag atajaamu ba dikkal leen al ilmu xam-xam ba ina rabbaka ni ki sa borom yàqali dana atte bay noonu seen diggante yowmal qiyaamati fii maa ci lépp loo xam ne kaanoon nekkoon nañu yaxtalifuna doon wuute fii ci lañ doon wuute yaa rasulallah fa in kunta ndem nekk nga fii sakkin boo nekkee ci sikk mi ma ansalna ilayka borom xam-xam yi bind ni yonent bi nañ koy waxee ne ko boo nekkee ci sikk te yonent bi sikkalul dara mi ma ansalna ilayka ñu ne ko bu fekkee ne da nga nekk di li tax ñu wax ko ko boo nekkee ci sikk ci mi ma ansalna la ma wàccee ci yow ilayka ci yow min qissasi Muusa ci waxtaan yi ñuy waxtaane ci Muusa ak li ñuy waxtaane ci Isa ak li ñuy waxtaane ci yonent yi la jiitu woon noonu nag oot ak saar ak waxtaan yooyu yëpp boo ci nekkee ama wa ci amee looy sikk te ma wàccee ko ci yow wax ko ci téere bi ma wax ko ci téere bi ñu ne anzalnaa ilayka kon fa sali laajal lesi na ñu nga xam ne yàqaraw na jàng nañu kitaaba tawreet min xablika ci la la jëkk yonente ne man kay laa asuku wala asal sikkaluma laajuma laxat jaaka dikkal na la alxaqu dëgg min rabbika ci sa borom ba bàyyi ko ci sa borom wala takkunoona bul nekk minal mumtarina bokk ci ñuy sikkal wala takkunoona bul nekk minal lisina bokk ci ñi nga xam ne kese boo dañoo dëkkee weddi bee ci lay ci alxuraan yàlla kon kat fa takkoona da nga nekk mina xaasirina kon da ngay perte na ñooñu perte nee na ina la ina ina ina lasina ña nga xam ne ak xat yooyu na kalimatu rabbika sa baatu borom muy mbugal ga laam la na jaanama alim ci ñoom ñoom laa yu'minuuna du ñu gëm mukk walaw jaatun doonte dikkal na leen ku laayatin bépp kiimaan dikkal leen ku laayatin attaa yaraw ba ñu gis al asaabu mbugal ga lalime la dal firaw na moo leen di dal mbugal gu metti ga fa lawlaa lu tere xalaa yelloon na kaanat nekkoon xaryatun ab dëkk uridu ahlaha amanat boo xam ne bi dañoo nam ma gëm amanat mu gëm fa nafa fa lawlaa lu tere allah yaloon na kaanat nekk xaritun ab dëkk amanat boo xam ne bii gëm na fa nafa jëriñ ko imaanuha gëmam ga amul illaa li fi nekk xaw ma yunusa illaa xaw ma yunusa ndareeg nit yontu yàlla yunus ñoom day lama amanoo ba ñu gëmee jekki nañu ba mbugal ga teew ñu gëm te mu jëriñ leen lama amanoo kasat na moo tax mag ñi ni foo ko def du lakk xikma boobu ci nekk tax waaw lama amanoo kasat na asaabal xisi mbugalu gàcce ga anum bàyyi leen fa fi laa yar ci àddina ndax yunus leen a waar waar ñu lànk yunus dem yoonam ba mu demee nag mbugal ga ñëw nag ba mbugal ga teewee nag ñu daal di woowaa dëkk ba gone yee namp ak yëpp ñu boot leen yóbbu bàyyi ma yi kenn nampatul bàyyi ma yi lekkatuñu nag yaa ngi naan mboo xar yaa ngi meen fas yaa ngi ñaxal ak gëléem yi nit ñaa ngi ñaan góor ak jigéen ñu dem ba ci àll ba ñuy toroxlu yàlla yërëm leen nag ca gannaaw yunus moo tax yunus nag ñu yedd ko nag gisa abaxa nag ilal fulkil masfuun fa saan ma fa kaane min al muddaalin fa taqamalu tugu mullimun fa lawlaa annahu kaane min al musabbiina la labisa fi batnihi ilaa yawmi yub'asuun loolu moo tax nag yunus nag ñaan aw jën jën wu mag wan na ko yàlla nag ne ko du sa wërsëg kat bu ko bu dara xotti ko ci moom dama dama ko tëj kaso ci yow mu am ci biiru jën wa ñetti fan yàlla soog ko dindi nag fan naa bas naa bi daraay ñoo ñoo sàqimun woowa sàqimun fan naa bas naa bi daraay woowa sàqimun yunus nag yàlla soog ko génnee nag yàlla nangu ñaanam laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin moom la ñaan ndax ñaan gi indi na wéetal ah indi na wéetal wax na itam tëlëg boppam wax na itam tooñu boppam tooñ na tooñ gi mu tooñ wax na ko laa ilaaha illa anta ji mooy tawit bi inni kuntu mina zaalimiin waaw moo tax ñett su ko andi ci ñaan yàlla nangu ko laa ilaaha illa anta subhaanaka laa ilaaha illa anta mooy di tawit bi subhaanaka mooy tasbih bi inni kuntu mina saalimiin foofu lay feeñale toroxloom waaw ah waaw noonu la waaw waaye nag ñaari rakka su jóot bu mujj ba nga def ko ñun fukk ak benn ñaan saaje loolu la ñu wax nee na nag fa nafa imaana ilaa xawmi yunusa aha kasafna asaabal qisi anhum fil ayaati dunya wa mataxnaa nu yóbbal leen ilaa hinin ba seenu dund jeex walaw saa doonte neexoon na rabbuka sa borom laa mën a kon dana gëm fi lalli man koo xam ne fi lalli yaa ngi ci kaw suuf kullu ñoom ñëpp jàmmeen ndoola bu neexoon yàlla ñëpp dum afante ndax yow yoon nen tukkuru da ngay naqarloo da ngay bañ ñaasa nit ña atta yakoonu ku gëmul rek nga bañ ko atta yakoonu ba ñu nekk moomi ni nañu way gëm ngëm maa ko yor wa maa kaana nekkul li nafsin ñeel bakkan an tu'mina bu mu gëmat ilaa bismillah ci ndagalal ndigalal yàlla wa maa tasaawana ilaa an yashaa Allahu rabbul aalamiin waaye yàlla mu defar gisa mbugal ga ala la si na si ñi nga xam ne laa yaqiluuna xeluwuñu xul waxal ne unsuru seet leen xool leen maasaa lépp loo xam ne lu ngeen mën a jàng ci mulku maasaa lépp loo xam ne fi samaawaat yi mu ngi ci asamaan yi wala léeg li ci suuf yi jàng leen ko kenn terewu leen ngeen jàng waaye wa maa tuxni du jëriñ aayaatu kiinaan ya wun nu suróobu waarekat ya jam hun na sirim du jëriñ dara an xaw min ci nit ñoo xam ne laa yoonu leen a gëmuñu lu waarekat yi bari bari bari du jëriñ ci nit ñu gëmul an xaw min laa yoonu noonu xul wax faal yan tasiroona déet ñuy muñ bi tag siibika su wedd gi ñu lay weddi ilaa misla ayaami lazina ndaree kenn bisi gaañ ña nga xam ne xale wiyoon nañu min xablum ca la leen jëkkoon ci ay xeet xul waxal ne fan tasiroo muñ leen indi naag ma man yonent maakum ànd na ak yéen mina muntasirina bokk ca ñooy muñ su ma topp nu na ji mu daare wu la nag li kaayatil xaal almaadiya nee na nu musal nag rusuluna sunuy ndaw wala si nag ñi nga xam ne amanoo gëmoon nañu ndaw ya mu musal leen ca mbugal ga ka saalika naka noonu ba léegi moom lay def xaqan ca dëgg alay naa war na ci nun nekk na fi nun nun na ngir moom i nee na nuy musal ñi gëm yàlla xul waxal ne yaa naas yéen waa makka in kuntum ben nekk ngeen fi sakkin ci sikk min diinii ci sama dëgg man yàlla min diinii ci lii ma leen di wax ngeen sikk ni li leen yonente bi wax dëgg la man day man yonent ne leen falaa abudu man duma jaamu la si ne la nga xam ni taabudoona yéen a ngi koy jaamu min dooni laay bàyyi fa jaamu yàlla walaa kenn la fi ne abuda danaa jaamu abudu danaa jaamu laaha yàlla abudu danaa jaamu laaha yàlla la si mooy ka nga xam ne yu tawafaakum yaqbidu arwaakum dana ngëb seeni ruu dana leen rey wumitu digalis na ma an akkoona ba ma nekkat minal mu'miniina ma bokk ca way gëm ñi yàlla nee na yonent nee na wa aqim ana aqim wajhaka wa qiila nees na lii ñeel ma man yonent dañu maa wax ne man andama ni aqim saxalal wajhaka sa xol li diini ñeel diina ji anifan diina ji jàng jëm ci dëgg bàyyi fa addiyaan yi ca des diina yi des wala takkunoona bu leen nekk min al musrikiina bokk ci ñuy bokkaale wala tàddam bul jaamu min dooni laay lu dul yàlla loo xam ne maa loo xam ne laa yan foo ko du la jëriñ dara jaamu ga wala yàlla lu ko mënu laa wàññi dara aha amul njëriñ amul lor amul dooleem amu ko am na foofu wal xayru yëpp min rahmaani النفع والخير من الرحمن te yàlla lay bàyyi ko النفع والسر من الرحمن الخير والسر من الرحمن yépp te yàlla lay bàyyi ko nee na wa in yem fa in faalta ndem def nga loolu fa innaka kon izan min azalimin wéen yem sas ko ndem laal na la laaw buur yàlla bu la bu la laalalee biddorum ci lor bu la laalalee biddorum ci ñàkk falaa kaafi amul ku mën a wuññi la woññeel ñàkk ba illaa woon rek moom yàlla wéen wit ko ndem da laa namm ci yow nag bi xëyrin aw yiw falaa raada kenn mun ta delloo yiw wa yiw bii yàlla da koo bëgg a joxub jaamam benn waaye rek ñëw delloo ko na du fi amee kenn mënu ko li fadli ñeel ngëneelam loolu nee na ah yàlla kim ko defal man yasaaw ku ko neex fala rada li fadlihi man yasaaw kenn mënu ko ku ko neex min ibaadi ci jaamam wowute moom yàlla xafooru mooy ko sural jaamam rayu mooy ko taqoo yërmande wa qul qul waxal yaa yal naa si yéen nit xad jaakum dikkal na leen alxaqu dëgg min rabbikum ma nga bàyyi koo fi seen boroom fa man itadaa ku sàkkoo jub fa innamaa yattadi yiw jubam li nafsihi ñeel na ko moom ci boppam wa man koo xam ne daal la dafa réer nag fa innamaa yadullu xayu réeram alayha wàkk na ko jëf ji yiw day dikk naan la daan nga sonn ngir man tey nag maa ngi nii def jëm sonal naa la lu nekk def nga ko ngir bëgg maa def man jëf ji yiw léegi nag waral mu daal di sëgg nga war jëf ju bon nag day dëkk ni da nga ma doon bànneexoo sonal nga ma coono bu nekk ngir topp sa bànneex ak def lu bon léegi nag sëggal ma war la yu baax da nga koy war jëf ju bon dalay war dalay wakk moo tax kii mu ni li kii mu ni a li nafsihi ak allayha ah da koy wakk wa ma am naa déet man bi waa kiri ma yaayoo kiilu aleykum ci yéen waxta bi toppal maa la nga xam ne yooye woo na ko ilayka ci yow was biir muñal ci woote bii ngay woote ala daxwati wa asaahum ataa yankuma baatellaahu buur yàlla woote moom yàlla xayrul aakimina moo di ngën li way teqale ña moo di ngën li way atte ña alif laam raa lu mu ci mën a doon allahu axlam bi muraadihi kitaabun ab haasa lii daal kitaabun ab téere la on ko mi yoo xam ne faram fàcce nañu jàqale nañu ayaatoo kiimaanam ya a bi ajibin nazmi wa badihil maani suma topp nag fasirata ñu te ñu leeral teqale ay waxtaanam ak waare yi min la dun ak timin boo xamul fu mu jógee mi ngi bàyyi ko ca attekat ba xabirin ba solo lépp lu mu doon lu xew dégg na ko mu wax nag ni moom an laa taabudu bu leen jaamu bu leen nangoo jaamu illa laa ndarag yàlla inni naka man ah lakkum nasirun aji waare laa ci kanam lakkum ñeel leen minu ci mbugal gi bañ mbugal gi dal ci seen kaw wa an istaxfiru rabbakum suma tuubu ilayhi alfarqu bayna al istixfar wa tawbati istixfar da ngay jégglu yàlla bakkaar yi nga def ba paase ko moom ngay jégglu yàlla taw ba nag ah kooku da nga ciy sàkku al afu yàlla baal la ko taw ba nag da ngay jégglu yàlla bakkaar yooyu nga def te am pas-pasub doo ci dellu am pas-pasub doo ci dellu mukk ni nga xamante ni soo moo rott moo ko delloo ca batt ba ne la wóore noonu ne dootoo dellu ci lu bon loolu kooku moo tax da ngay def istifaar ba pare soo ko def tawba da ngay def astaxfirullah ba noppi jëf ko laa wax de ba noppi nag soo ko def tawba moo tax mu ni waan istaxfiru rabbakum moo tax ci suma suma topp nag tuuboo ngeen tuub illay jëm ci yàlla yu ma tenkum dana leen yóbbal mattaan ak yóbbal asanan bu rafet ilaa ajrin bel cib dig mu saman seen digu dee way yooti dina jox moom yàlla kulli si fadlin bépp borom ngëneel fadloo ngëneelam ak payam fadloo ak payam wen tawalaw ndem da ngeen a lànk wen ni naka man yonent axaaf ragal naa asaaba yow min mbugalu bis kabirin bu lool aleykum ci yéen marjiikum seen delluwaay ila lay jëm na ci yàlla wa wuta moom yàlla xadirun mën na ala kulli seen ci lépp lépp yàlla telewul dara mën na lu ne allah dama ne innoom naka ñoom yes noona ña ngay lem su doorom seeni dënn dañuy muuroo seeni malfa wala ñu muuroo seeni malaan dem ci àll ba lii tax wa naan ngir nañu nëbbu minu ci yàlla allah yàlla nee na xiina yastaxsoon waxtu ba nga xamante ne ña ngay nëbbu ña ngay muuroo yastaxsoona ña ngay muuroo siyaabahum seen malaan yooyu le yàlla mu xam na moom yàlla maa yusroona la ñu nëbb ca xol ya wa maa yulinoona ak la ñu feeñal wax ko sawaawun yàlla nee na yemoo na ci yéen minkum ci yéen man asaral xawla wa man jaara wa man huwa mustaxfin bil leyli wa nahaari wa man huwa mustaxfin bil leyli wa saaribun bin nahaari waaw loolu la wax ci saaru wax bi wa maa yulinoona innooni ki moom yàlla alimun aji xam la bi saati sudóori lakk la nekk ci biir xol ya deret di jaxasoo xol ya deret di jaxasoo xol ya yàlla nee na sama xam-xam passé na foofu deret di jaxasoo xol ba loolu nga xam ne moo mel nii mooy xol ah foofu la nekk li war a fi wax xol nag bu jaam ñi demee seen kër sang di ko fab loolu xëtër la tudd ci ahdaa u rey si la bokk mi ngi bokk ci membre yi nga xam ni ñoo yilif membre ye membre yële membre yu jëkk ya ah membre yu jëkk ya yi nga xam ni mooy bët mooy xoole bàyyi na ci ci dañu wuteeg moom bët nopp day dégg bëkkan day foon xam bët xool xam nopp dégg xam loxo làmb xam gimiñ mos xam mooy mooy juróomi yëg yi membre yooyu nag dafa am yeneen yeneen juróom yu nekk ci biir mooy aqloog nafsoog xalboog sirru ak axfa mu am nag ñeneen ñoo xam ne ñoom nag ñoo téye bureau ba nag ah daa u raysa ci wér gi yaram ga ahum kooku xol ci la bokk ah ci la res bokk ci la ah ndab yooyu nekk ci suufu ngóora ci ahdaawu raïs la bokk ak wextan ci la bokk yooyu ñoo di membre yi nga xam ne nag ñoo yore bu- bureau bu mag ba nag ñooy doxal xam naa moom la gaa yi wax comité central la xëy na mooy ñooñu nut bu ñu yàqoo bu ñu démissionné ñu ñee démissionné nag bureau ba daanu loolu daal waa ji suulee koy si dee daa di ñëw rek dee daa di ñëw rek ah daaw cëri doomu aadama moom moom dañuy wax membre ah ah moom la
mooy fal mooy fal bureau politique ah mu nga
bureau politique mooy doxal gouvernement kon nag mooy ñi ñii bu ñu feebaree ñii bu ñu feebaree boo xamante ne xol yàqu na wala res yàqu wala wextan yàqu wala ndab yooyu nekk ci suufu ngóor a yàqu lu mën a dal loxo jor ta faji lu mën a dal tànk jor ta faji ah lu mën a dal bët jor ta faji amatul njëriñ parce que ñële ko téye woon
ca direction ba la bañee ca direction ba la njëriñ ñi ko faloon ñoo ko fal te
kenn mënatu koo faj ñooñu moom ñoo ci gën a foor ma tax rek organe noble la daa kenn mënu koo faj mu ngi mel ne loolu nekk ci wata ci kanam xam ne bu tojee day mokk rub waaw parabris yàlla nañ ci yàlla defee lu gu wér bi urmati rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam wér yàllaa ko yor ah maa yusiruuna wa maa yunnuuna inoo alimun bi saati sudur ngëm yàlla foofee la ko yàlla tëral place ba xol nekk foofa la ngëm yàlla bu nekkoon ci xol boo fa dee xol bu yéefar defal ko jullit mu nekk jullit mu nekk yéefar wala nga fa xol jullit defal ko yéefar mu nekk jullit te du tax mu nekk boo fa dee xol jullit defal ko yéefar defar ko ca ba mu nekk fa du tax mu nekk leneen du tax mu nekk la jullit ba nekkoon ndax ngëm yàlla yàlla da koo denc foofee xol nekk rek waaye fa mu ko denc moom danga ko xam du jaagee ne ma nga ca xol waaye nag xol a ko koy contact xol a koy contact nag moo koy doxal moo ko waaw wa ma min dabbatin waaw déet dara luy sukkat ci lar la ci suuf ilaa alalaay mbereg yàlla moo téye ilaa alalaay mbereg yàlla moo yor moom kat dara waru ko ah su ko neexee nag mu warlu ko waaye moom dara waru ko ilaa alalaay nekk na ca yàlla risqoha wërsëgal ko risqoha wërsëgal wërsëgal nag yàllaa ko yor aha moo tax ahlu tasawuf do ci am ñu bind ni yemoo na sabab lu jeeg bañal sabab lu ji wërsëg waaye déedéet dañoo kontar loolu dañu bëgg nga def tawakkul te bañ a def tawaakul ne yàllaa yor wërsëg rek doo def dara doo sabab lu dara loolu tawaakul la bokkul ak tawakkul waaye la mu xam ne mustaqaraha saxuwaayam ci biiru ndeyam mëska noo xam ne it saxuwaayam ñaata ñaata lay dund ci àdduna wa mustawdaaha ak kañ lay bàyyi ko ci àdduna baadal mawti wala kañ lay bàyyi ko ci biiru ndeyam kullun lépp fi kitaabin mi ngi ci lawil mahfuus mu biinin ba di bir wa wote moom yàlla la si mooy ki nga xam ni xalaxal bind na samaawaati asamaan ya wala arlaak suuf ya fi si te ayaamin ci nettali juróom benn fan yi commencé dimanche tey mujj ajjuma wa kaana nekk na arsuhu xabla xalqi la jëkk ba mu daat xabla xalqihima la jëkk ba mu daataan bind asamaan ak suuf arsuhu booba arasam nga alal maay ma nga tiimum ndox alaa mat ni rii ci jegenu ngelaw léegi lu ko ngir yàlla mu nattu leen nag yàlla na mu meloon yàlla du sensé na mu meloon moom la masa mel mooy asal ak labat asal mooy nii la masa mel labat mooy nii lay mel faw yàlla du changé du changé kuy changé doo yàlla yàlla du changé yaa gis diw léegi ni mu amee yaram yaa gis léegi ni mu nangam nangam déedéet yàlla génn na ci loolu yàlla nii la masa mel te nii lay mel faw rek waaw. kii de maa ngi dundal waxtu.
ayukum waaw mhm, waxoon naa ko Jekk.
naka jekk waaw waaw naka jekk waaw waaw muy asalee bi wala in qulta ndem wax nga innakum naka yéen boobu oosoona dañ leen di dekkal min baadil mawti te gannaaw dee boo leen ko waxee la yàqoo lan na ñu wax la si nagaa ñi nga xam ne kafaroo dañuy weddi in asa déet ji alxuraan li ñuy wax dara du ci dëgg ilaa siirun dara njabar la mu biir nu guddi bir wala naa xar naa ndem yeexe nañ yàlla nee na bu ñu yeexee alaasa bu mbugal ga anhum bàyyi leen fa ñuy am jàmm illaa umatin bal ci di waxtu wu ma neex maa dootitin bu ñu lim date ko la yaqulun na dana daal di wax maa yaa bisoo du moom dañu woon dana nu mbugal ana lu téye mbugal gi yi muy wax da cee man dara allah dama ni yow ma yaatin bis bu leen dikkalee mbugal ga laysa masrofan madd fooxan kenn du ko gañ xan hu mucc leen fa waaxate yey na maa la nga xam ne kaana nekkoon nañ station na doon ko sàkkoo reetaan bii ci lañ doon reetaan bihim ci ñoom wala ni sàq naa ndem masal nanu al insaana yéefar ba nit ka nekk yéefar rahmatan yërmande min naa ju bàyyi ko ci nun muy wér gi yaram akum koom su ma nasaan naa topp mu nangu ko nun nangu minu ci xéewal ga indoo nag moom la yowoosun ma ngay ñiñ naan man lu ma def yàlla ba mu def ma nii man xawma lu ma def yàlla la yowoosun kafoorun ma ngay weddi kafoorun wala ñu sàq naa ndem mosalaat nan ko ndax maa ak xéewal daxa da daraa gannaaw ba nga xamante ne lor gi ñëwoon na ci moom masalu joo xam ne laaloon na ko la yàqoo lan na kon day mu waxaat saaba dem na sa yaatu ñaaw téeféer problème yëpp rek la wona tabaarkalla problème yi rek la wona xam ni bàyyi ma fi te kat du sant yàlla inna wa ni ki moom waa jooju la fari ma ngi fuukarewu faxooran di damm ci kaw nit ñi ku ne mu ni maa la gën woowu melo nag ilal la si ne nderek du ko mel mukk nderek gaa ña nga xam ne sabaroo ñu nañu ñoom du ñu mel noonu waa mi loo ñu jëfee saadaat sa farataat sunna ulaaka ñooñu gaay lawum ñeen na leen maxfiratun ak njëggal waajurun akub yool kabirun bu réeréy te muy àjjana fa laalaka ndax yow sayidna muhammad taarikun da ngay bàyyi baada maa leen la nga xam ne yooxaa dañ koy waxi élee ko ci yow nga bañ koo jotal ndax defe ne boo ko wétalee yéefar yi dañ lay xas wala ñu mën a la dara wala yaqam tiis sëdduru ko sëddën bii ci jàng alxuraan ba bii sëdduru ko sëddën ci wax dëgg waxal dëgg wa daayaqun bi i sëdduru ko li ma la wax loo wax ko bu ci ragal kenn an yaqooloo ñoom nga bañ bu ñu waxat law laa lu tere un si la wàcceet kan suñ am koom àll ci yonente bi moom amul dara amulub tool aw jaawale dikk malakun malaaka maa woo ànd ak moom di ko garde inama anta dëgg yow nasirun aju waare nga rek dama laa waare loo jotalal wallaahu buur yàlla wakkilun moo wakkillu allah kulli seen ci yeneen yi ci des allah kulli seen ci lépp la am mu toogee place su bal waccil sikk jàpp dëgg yaquluuna dañ naan iftareewu yonent bi dafa fortu alxuraan bu fekkee ne yonent bi da koo fortu xul faatoo andi leen bi asri suwarin fukki saar mislihi kenn alquran innakum arabiyona am ngeen fasaha am ngeen balaaxa andi leen fukki saar la commencé fatiha ba fii fukki saar la moom la wax ni indi leen ko fatiha baqara ali imran nisaaw maida lanaam laraab yunus ah tawba laa jël lanfaal lanfaal waaw lanfaal ak tawba ak kii muy fukki saar indi leen ko ak yunus ak kii fukki saar képp la indi leen bi asri suwari andi leen lu commencé fàtte ba fii am na fàtte dañ ko mën a wax.
andi leen ko andi leen ko bu fekkente ne li ngeen wax dëgg la innakum arabiyoona ay arab ngeen de am ngeen balaaxa tabarkalla am ngeen fasaha andi leen fukki saar muftarayaatin yu ñu fortu ndem yonante da koo fortu waddu hoo woo leen man istataatum ku ngeen mën a woo min dooni laay yàlla rek nag laa leen mayoon ngeen woo ko ku ku dul yàlla nag woo leen ko mu dimbali leen yàlla rek la ñuy jël nag may ak groupe bi ci des ah man istatatu min dooni laahi in kuntum dem nekk ngeen saadiqina di wax dëgg fa in lam yastajibu boo demee ca xaasa mu def fa in lam yastajibu fa in lam yastajibu waaw xasas ah waaw moo tax mu fa in lam ah in lam oot fa in lam xasas ndem wuyu leen lakkum ñeel leen faalamu xam leen ni annama unsila kon na ngeen xam ne ki ko wàccee muy yàlla yàllaa ko wàccee bi ilmillaahi ba ñu xam ne alxuraan dañ koo wàccee bi ilmillaahi ca xam-xamu yàlla xam-xamu yàlla du fort wa annahu luy dëgg tey dëgg laa ilaa de benn bur illaa wa ndeen moom ndareen moom faalantum bëgg rek yéen muslimoona ngeen wéetal yàlla ngeen jébbalu man koo xam ne kaana nekk na yuridu di nam al ayaati adduna kese dunyaa ga di kees way seen taa taaru adduna kot ndoo fi ah daanu matale amaalum seeni jëf illeen ci ñoom daañu leen jox adduna di saaw maa amiloo la ñu defoon ci yu ka sadaqatin wa silati ramin ak yëpp wa man yaamal misqaala saratin xayran yara wa man yaamal misqaala saratin saran yara fiiha ci adduna woom te ñoom laa yëpp xasoon a deesul geccal leen fiiha ci adduna lañ doon def te adduna taxoon daañu leen ko fay ci adduna ulayka ñooñu gaay nag ñii ma fay ci adduna nag te adduna taxoon ñuy def lesi ne moo ña nga xam ne lay sa loom de di ñeel leen fi laaxira ci àlaaxira illa naaru mbereg sawara wa habita yàqu na maa sànnaw lañ doon def fiiha lañ doon def fiiha ay axiratu fala sawaaba lahu lañ defoon ci àdduna dootuñu am dara duñu amit benn yool ci àllaaxira wa baatilun yàqu na maa la nga xam ne kaanu nekkoon nañ yaxmaloon na doon ko def yàlla nee na ak man ndax ka nga xam ne kaana nekk na allah bayyinatin ci leeral ci lay min rabbi mu bàyyi ko ci boromam te mooy yonent wala way gëm ñi te nee na wayet loowu topp na ci yonent saahidun aji dëggal aji seede minhu bu bàyyi ko ci yàlla kookaay kan mooy jibril wa min qablihi tukkee na ci la jëkk wàccub alquran kitaabu Muusa tawreet téere Muusa wàccoon na fi imaaman mu nekk mbir mu nekk di njiit wa rahmatan te yërmande ca jamonoom ulayka ñooñu gaay yoomu noona ulayka ñi nga xam yoomu noona gëm nañu bihi ci alxuraan fa lahum jannatu ñi gëm alxuraan te gëmoon tawreet lahum jannatu wa man yakfur ku weddi namu nag bii ci alxuraan min al-ahzaabi ci kuréel yi ci kuréel yi yéefar yi kooka fa naaru sawara mawiduhum mooy randiwoom sawara foofu la jëm mooy randiwu ba de moo di daalam falaa takku bul nekk fi miriyatin ci sikk minhu ci alquran ne innoo naka moom alxaq ak dëgg la min rëbb ko bàyyi ko ci sa borom walakin lu fi ne ak kasara naasi la gën a bari ci waa makka laa yoominuuna gëmuñu alquran wa man ana kan aslamu di gën a tooñ laa ahadun déet kenn aslamu di gën a tooñ ne mun ti koo xam ne iftara day fortu kasiban aw fen alalaay di ko teg yàlla bi nisbati sariki wal walad naa ni yàlla dafa am bokkaale yàlla dafa am doom ulaka ñooñu gaay yuhura doona des na leen teewal taxawal leen ala rabbim ci seen kanamu boroom yawmal qiyaamati yuhura doona dañ leen di teewal ala rabbim seen kanamu boroom yawmal qiyaamati bu ko defee wa yaqulu wax asaadu ñe doon seede saahidun wahum al malaayikatu malaayika yi doon seede yonent yi daañu wax yow gisa bopp seede yi la yàlla booleel muy cër yi yi ma doon wax sànq ñoom itam daañu wax kenn ku ci nekk da nga seede loxo dana wax ni lu mu jàppoon maa ko jàpp tànk lu mu doxi woon maa ko doxi làmmiñ lu mu waxoon maa ko wax bët lu mu xooloon maa ko xool leneen it fu mu duggoon dana ko wax yow ma tas saddu yow ma tas saddu te saaru yaasin waaw yeneen léppay seede nag di wax ak ñun loxo yeeg ñëpp nag seede yëpp wax nag xawlooy ñii de la si ne mooy ñi nga xam ne kase boo dañoo dëkkee woon weddi àlla rek ngi seen borom ñu daal di woo nag malaayka muy yéene nag allah laxnatullahi ala zalimin allah dama ne laxnatullahi rëbbum yàlla sori yërmande yàlla ala zalimin macc na ca way tooñ ña la si ne mooy ñi nga xam ne way tooñ ña mooy ñan ñi nga xam ne dañuy fegu an sabilillahi bàyyi fa diine l'islam wa yabqoona ñuy sàkkoo diine l'islam huwa jan ak ndëngte ak dëng woom te ñoom woom te ñoom kaafiroona bil axirati ñoom kaafiroona way weddi lañu bil axirati ci alaxira hum ñoom ñoom ñoom muy taxkit da nga naa woom te ñoom kaafiroona way weddi lañu bil axirati ci alaxira hum ñoom ñoom ñii ulayka ñooñu daay lam yakuna nekkuñu mu gis yi nañuy way raw fi dal gi suuf wa ma kaana nekkul lahum di ñeel leen min awliya ku leen di dimbali min dooni laay ku dul yàlla yu daafu danañu sul ala sabu mbugal ga lahum ñeel leen maa kaana dem dootuñu nekk istatewoona ñuy mënati sama dégg ba mënatuñoo dégg lu baax ndax dootuñu dégg wa ma kaana dootuñu nekk yëpp seroona ñuy gis lu baax ndax dootuñu gis ulayka ñooñu gaay la si ne mooy ñi nga xam ne xasiroo pertal nañu anfusahum seen bopp li masirihim ila naar wa dalla réer na maa lépp loo xam ne kaanoo nekkoon nañu yeftaroona doon ko fort fort baaxul fort baaxul wa dalla maa kaanu yeftaroona lañ doon fort dana réer an hum baleen fa ñu ni dum yàlla nee na laa jarama ca dëgg mop mop laa jarama ca dëgg annahum naka ñoom hum ñoom laxsaroona way perte lañu fi laaxirati ca laaxira inna les ne niki gaa ñi nga xam ne nag amanoo gëm nañu waa meloo ñu jëfe saalihaati farata ak sunna waa axbatoo ñu jàng ñu jàng xubbiku xubbiku ilaa rabbihim jëm ci seen borom xabbata xobbat ci garab garab gu wow xobbat ma boo ko dee dindi na muy dañe noonee la ñuy dañe ci seen bànneexu bakkan ki leen naroon a rey da leen dañ koy rey moo tax nit yàlla yi raw bànneex a leen naroon a rey ñu rey bànneex wa axbatu ñu xobbeeku wa axbatu ñu jàng bàyyi adduna ilaa rabbin jëm ci seen borom ulayka ñooñu gaay asaabul jannati ñooy waa ajjana comme ñoom ñooñu boo leen xamul xaalidoona buñ demee ajjana xaalidoona way sax lañu fiiha ca biir ajjana abadan misalul fariqayni waaw misaalum yéefar ak ku gëm ka lax ne ndax bisub tardé wala bisub yéex ka lax ne ñi nga xam ne ay gumba lañu ka lax ne ak ñi nga xam ne dañoo tëx wala sunu ak ñu tëx ndax gumba silmaxa dana yem ak njàccaar ndax ku tëx dana yem ak kuy dégg moo tax mu ni ka lax ne ah dana yem ak basiir asuma ki tëx dana yem ak sàmmi ñii koy mooy misaalum jullit ak yéefar alistawiyaani ndax daañu yemoo masalan ci misaal laa afalaa tasakkuruuna lu leen teree waaru wala xat dëgg la arsalnaa yebal nanu nooxan yonte yàlla noohun ilaa xawmi ci nitam ñan ma ne muni mun ba mu demee mu ni andi naka man nasirul aji waare la mu binun bi di birug waare lakkum ñeel leen li may wax mooy an laa taxbaro bu leen nangoo jaamu ilallah ndarag yàlla inni naka man noon man de axaafu ragal naa asaaba yawmin bëggalug bis alimun gu metti alaykum mu dal ci seen kaw fa xaala daal di wax malaw garam place ba mooy nit ñu tedd te lànk la si ne mooy ñi nga xam ni kafaroo wedd nañu min xawmihi ñooñu nag ñu ngi bokk ci nitu yonteelam noohun ñu ni ko yow yaa noohu maa nareeka gisunu la ilaa basaran ndareen mbindiif nga mislanaa muy sunu kem waxuñu ne doomu aadama sax ci mbi ci basar yi lañ ko boole mbindi fii xam nga doomu aadama moo gën a foor ñu ne ko basar nga rek basar moom ci la lépp bokk lépp ngi ci biir. yow
tax bi yàlla commencé bind basar moo ko xam mabdawul xalqi nag ci la ñu bindaale aadama Mhm. ah gisuñu la kat ila basaran mislana wala faddala lakka alayna wa ma naraaka gis na la lu dul itabaaka topp na la ila wa ma naraaka déet di topp la ila ñi nga xam ni ila la si na ndere ñi nga xam ni xum ñoom araasul naa ñooy suñuy kees ñi nga xam ne amuñu métier ay corbeñe lañ ay corbeñe la ñuy def ak ay kenn xamul amuñu métier mu foor baa di ray muy ñi nga xam ne dañoo ton di pexe xam ne amuñu benn pexe amuñu benn responsabilité dara dañu nit ñu tekk dara ñooñoo la topp wa ma naree gisuñu min fadlin ngëneel lakkum ñelee na alay naa ci suñu kaw bal na suñu ko nun sax dañoo jort ni kaasi bi na yow noonu ak li ngay woote da ngeen de da ngeen a jóom ñun daal ñu ne ko noonu fa bu fenn di ko tegub yonent ñoom ñoo ko ñeme dañu yaakaar ne ñoom da ngeen a juum xaala wax yaa xaw ma yéenu nit sama arrêtuma soloo leen ma in kuntum dem nekk na ala bayyinatin ciw lay min rabbi yu bàyyi ko ci sama borom wa aate ni yàlla jox ma rahmatan ak yonent